de procureur tribu euh, prison prison nga fay dund loo xam ne ay weer yu weer yu weer nga nekk fa ci condition yu doy war yu méttee métti métti loolu yëpp mën a euh, jur ay méttit yoo xam ne si biir xel mi lay nekk immédiatement li nga xam ne yëguñu woon ne mu ngi yàq dara si biir xelam si biir yóoram loolu ub euh, jóg mel ni cancer xam nga li ma bëgg wax su boobaa effectivement euh, man ndekk feebaru xel bu doy waar bu koy dikkal loolaa tax ban maa ngi ñaan autorités yi pour ñi euh, taxawal kuréel boo xam ne day saytu di faj euh, problème xel yooyu parce que ki ku gën prison même su dul affaire politique sax nit ku gën prison Euh, y a des am na risque yoo xam ne daal euh, xelam dem mu dootul nekk ku ni mu waree ci biir société bi.